mbokku seetaankat yi euh, ñu ngi nii jàkkaarloog euh, suñuy papa euh, mi nga xamante ne ni moom lamb ji kilo la si du si liibar fekkee na làmbi Gambia démb fekkee na làmbi Gambia tey su ko defee dañ koy nuyu papa nuyu nañ la bu baax a baax. jërëjëf fay naa la di kontaan ci laaj yi nga ma nar a laaj ak ni nga ma tàllale microphone bi ci bi ci bi nga xam ne fi tey Tyson daane woon Mor Fadam ci takkusaan gi fi la dun xaaf daane woon Gambia fi la Xoyantaan daane Tasa Yaram fi la Xoyantaan daane Mboraan daan fi ñu bëri Mandoir am fi takkusaan gu nekk Jinne Mori am fi takkusaan gu nekk mbër yu bëri jaar ci béréb bii nii kon soo ma fi taxawee ngay ma laaj te ma xam ci dara la ma ca xam dana lay ko wax. te ngeen dégg dëgg de nee naa leen dafa fekkee làmb démb fekkee làmb tey moo tax ñu am yéene bi pour waxtaan ak moom. tey nag si suñuy làmb ubbeeku na champion sound promotion ñoom ñoo ko ubbi tey stade bi boo ko seetloo ban façon jàngat nga am ci stade bi tey. waaw làmb jàngee dem ca kanam làmb bu njëkk ba amutoon lu demee nii mosuñoo xelaat defee ko Independence Stadium waaye ay at ci gannaaw depuis 2005 wala 2006 jëm jàpp 12 ci la lii commencé di am fii ñu di ko fi def kilifa yu bëri di ko teewee. ci wàllu nguur gi ak yeneen i kilifa yoo xam ne ci wàllu aada ak cosaan la ñoo yëngatu ñooñu boo leen gisee ci place nga xam ne la ñoo yëngatu loola nga dem ci kanam journalisme baa ngi dem ci kanam milieu bi angi ko yóbbu tey Star FM ñu ngi ko génnee di ko wax ci rajo man def naa ci li ma xam bañ jël ko ci suma loxo ma jiital leen topp ci seen gannaaw di leen déglu te di leen seetaan ñëpp jaar ci yoon kon nga xam ne bu ñemee rek dafa am ku ñu waaw léegi mbër yi kenn ku nekk ci jommu gi tuus ban façon am solo la tuus am ci làmb. waaw tuus mi bëri na lool tuus am man tuus saalum saalum ndindi muñ sempi wala sembereng wala sambumba wala junkurang yooyu mooy ngeen di dugg waaye nag ngéwél gi baan def nañ fi loo xam ne lu rëy la ak bennoo bale nga xam ne saalum saalum lañ tey dëggam cosaan mu nekk dégg naa ko fi lagg mu nekk bàkk bu nekk tamit am na fi mu wane ne làmb ngay dem ci kanaaw ci kanam te amul fenn fi ñu fii la fii la jaar ñu daan ko wax njool makka Doudou Baka Sarr Falaye Balde ñoom cercle jalang ba Kër Demba ba mu dajeeg ñaaw ngeen ba bàyyi fàttaloo ba ca kawul lu rëy la woon Gambie dañ am cosaani làmb te dañ ko war a xam war ko wax ci rajo yi ñëpp dégg ko ñu xam ne lii ñu ñoo ko moom jëggaanuñ ko fenn def ñu fekk wala ñu ñoo ko sos. tey nag buñ jàngatee ci combat yi combat yu doy waar rawatina grand combat bi diggante Ndongo Lo bàyyeekoo ba senegal ñëw fas yéene pour bërek Rambo bu Bakaw nan nga jàngatee combat. combat bu rëy la. combat bu ma jaaxal fekk la sa réew daan la problème la te Rambo du nangu loolu ba àddina tukki. borom fit la am na mbooloo am na gannaaw am na yaakaar te Rambo mu dugg ci si géew rek jël jëli boppam la ndongolo def na fi lu benn mbëri Sénégal mos ta def moo njëkk ci arène bi 4 minutes balaa time bi ñu ko jox di jot loolu moom kenn moo ko defagum ci arène yi Gambia fii nii boye ko Sénégal def ko kon joxe na exemple bu rëy royu kaay am na jom waaye ki muy fekk si war na ko ne nag fekk si nga ma suma dëkk maa la gën a xam fi lal yi faree mu ci problème. mu ngi si ay teexa teexa ci ay daanu la bàyyeekoo ñëw nar a bëre digganteem ak amical bu naree ñàkk combat bi tey yàlla tere tereeti ko lan la mun a jural bi moo tax ñëpp a jaaxle ci mbiram waaye am na yaakaar waaye amical éegu kaare ci building te dina tray pour ñettu dem waaye building dina koŋ ci bopp ne ko wàccal ma xéeg gune du sopp moo tax dina métti lool nag waaw. mbokki seetaankat yi euh, ñu ngi nii ak euh, beneen promoteur euh, muy Goumba moom it teewaayam fii ci làmb ji gis nañ ko nee naa leen grand combat bi diggante Ndongo ak kii di bu Bakaw. Euh, tey nag euh, ñu rafetlu sa teewaay tey ci làmb ji champion sound promotion ñoo xewle ñu gis la ci bés bi gu bëggee waaw dañu sant yàlla bu baax julli ci yónnantoom di leen nuyu di nuyu waaye SAFM yëpp di leen ñaanal jàmm ndax ànd bu yàgg la euh, di ñaanal ñëpp jàmm ci weeru safar bii ñu nekk di ñaan seen borom dafal ñu xewal barke Serigne Touba kontaan naa trop champion nu mu ubbee FNM nit ñi ñëw nañu teg nañ ko ci yar ak teggin di ñaan rek lii yàlla na continuer waaw di wax salaamaaleykum wa rahmatullah nan nga jàngatee mbir mi tey combat yu doy waar la champion sound andi rawatina grand combat bi euh, diggante euh, Ndongolu ak Rambo. combat bu garaaw la bu garaaw la waaye man dama tànn ci biir lamb ji benn combat muy diggante building ak ki nga xamante ni mooy amical combat boobu combat bu garaaw la ñoom ñaar kenn ku ne dafa jógee ci défaite waaw euh, grand combat bi moom neexut a débat dafa garaaw trop ndax gars yi nga naan diggante Sénégal ak Gambie mën na leen déedéet du diggante Sénégal ak Gambie ñoom ñaar kenn ku ne boo jëlee sa poos ngay dugal nañ ko teg ci làmb rek mu commencé ci lamb jeex ci làmb ñoom ñaar ku ci ñàkk ku ne rek dangay ngay arrière daal waaye ku ci dem ku ne am nga lamb am nga cër ci lamb. wax nga combat bu doy waar muy diggante Building euh, ak Amical Building tey est-ce que war na mun a naagu pour war a mun a jëlee défaite ci combat bu amee défaite yàlla tere tereeti ko lan la mun a jural Building euh, dama ne tey combat bi moo ko mën a bokkuloo ndax tey ku ci daan ci combat boobu rek bu la neexee mun nga taxaw laaj ci sigantu laat combat bi muy diggante Tapha ak ki nga xam ne nii mooy Sané waaye ku ci ñàkk rek da delloo ci ci combat yi ci gën suuf moo tax Building ñàkk arrangé ko euh, amical ñàkk arrangé wu ko. waaw Goumba Gueye euh, yaa ngi yëngu ah yaa ngi ci dara xëy na dañ la dégg gur rek. waaye am na lay waajal. ci lan nga nekk groupe maa ngi waaj xam naa suba incha allah ah, bëgg naa sañ suba di ngeen ma dégg mu neexee yàlla. suba dinañ la dégg di ngeen ma dégg foo jëm Goumba Gueye foo jëm. maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw bàyyi takk ko foofu rek. non man xam naa ne boo fëlee rek ñëpp kontaan. waaw incha allah. waaw kon euh, mujjanteel bi rek ci wàllu sponsor yi. lan nga am pour wax ci wàllu sponsor yi. gars yi rek na leen euh, dañ ne ministre sport bi na jog dooleel ñi ñi ànd ak télé yi ak rajo yi liggéey dëkk bi laay wax du mën a liggéey làmb de dëkk bi la parce que boo xoolee lii am na ñoo xamante ni sax jógee nañ ci beneen gox ñëw di génn seen xaalis di ko def ci ndaw ñi kon nañ jox jox ñi ñu jox ndaw ñi loolu mooy yóbbu lamb ji lamb ji dem ci mën a kanam sport lañ wax euh, te lamb mooy suñu aada ak suñu cosaan kon na sponsor yi borom compagnie yi jog ñëw ànd ak ñin ñi liggéey lamb dam ci kanam. jërëjëf jërëjëf. dañ fi gis ñi nga xamante ne rek ay borom ndombal tànk lañ ci làmbi réew mi gis fi ñi nga xamante ne rek làmb moom moo leen saf ñu bokk ci làmb di yëngu ci làmb ñu gis kii di VIP moom it mu nekk ki nga xamante ne mu ngi yëngu ci làmbi réew mi waaye nag bu ñu yeboon nañ ne ku bees la si làmb ji VIP nuyu nañ la bu baax a yow it rafetlu nañ sa teewaay si bés. waaw fay nañ la. di la nuyu yooyu itam la siyaare di nuyu waa Star TV yëpp daal ah di seen liggéey daal si kaw si kanam waaw. tey dafa mel ni si sini làmb ubbeeku na ñu gis la nga teew fi en tant que promoteur promoteur nga di yëngu ci làmb di tëgg ay combat nan nga jàngatee mbir ak nan nga koy dundee. waaw di gërëm suñ kilifa yi si làmba ji spécialiste si nuyo promoteur si man fu ma taxaw dama leen a tagga ndax tey suñ ko doon lu mu def dafa rafet ñu champion sound tey su xewloo ñëpp teew promoteurs yëpp teew loolu ndam la wax dëgg ne yàlla tey moo moo ñu fi indi tey làmba moo ñu fi indi daa lu bro ala wax rek sant dafa dal xel barki démb laa xewle face to face yëpp teew so loolu mu nekk lu rafet te ñu nekk xale yu ndaw nekk promoteur bu ees ah, di yëngu si xale yi si grassroots bi soo ñu xewle ñu jàpp si loolu moo waral tey tamit ñu teew kontaan trop daal di wan bi rafet na trop dinañ si jàngee lu bëri bëri ah ba di ko ñaanal ñu si duggee si bisimilahi rabil alamin jeexal ko si alhamdulilahi rabil alamin daal ah di wan ne ñoom seen tànka yi lañ nañ ne xam nañ ne mënuñoo tëgg xale yi because event bu mel nii nga dugal si ay hundreds of thousands of dollars xale yi duñ si mën a bëri soo moo tax nag ñu ne nañ jël xale yi soo pour concentrer si grassroots bi pour jàppale leen si xale yi nag di wuyoo seen waaw nag waaw di gis jàppale bu ñoo jàppale tamit ñoom ñëpp jàppale nañu te gis nañ ñu taxawoo daal di leen sant di daal waaw. ñu gis na nga nekk ku bees ci lambi réew mi dugg tegu combat génnaat waaye dawoo nga sóoruwaat jeneen combat def sa face to face ni ko lan nga jàngat ci lambi réew mi est que am nga yaakaar ne war ngaa mun a des ci lambi réew mi. waa xam nga lamba dafa métti te ku see des ku nekk rek sa bugg a bugg la parce que lamba ji amul sponsor te promoteur seen onage la ñoo génne di ko di ñu ñoo leen war a jàppale promoteur sax ñu ngi seen waar. wax dëgg neex yàlla so te ñu ngi oo indi nag sponsor si balaa moo lamba ji si kanam la jëm so balaa ñoo dem ba si kanam nag ñoo xam ne jàppa si dafaa dem ñàkk a see ñu ñëw jàppa si tey nag sant yàlla si gisee comme promoteur si es yu ni Banjul Breweries gis nañ fi safi loolu ndam lu rëy la nag ndax ñun amuñ lu lamba football dañ ko jéggaani waaye lamba suñ cosaan la te ñu ñoo ko moom soo dañ ko war a te lii youth empowerment ndaxte xale yi fi ba bëre yëpp luñ si mënti am moo des soo loolu lañ si war a jàppa spécial government bi dañu war a génne spécial budget daf ko si làmba ji ndax mu ngi dem kanam soo leen si war a jàppa soo wax dëgg ne yàlla li leen si jàngal lu bëree bëri daal because ñun xale lañ so al moo loolu loolu doo amateur lañ woon soo ñu xam ne koto yi mënuñoo tëgga mbër yu nekk si làmba ji yëpp te xale yi grassroots bi ñu ngi buggal lamba soo loolu moo tax ñu ne ñu dog suñu lansin pour ñu jàppale la ñu ngi sàkku si nag ñu ñaanal parce ay ndaw lañ te bëgg nañ lamba daal ñu ñaanal ñu ndax suñu ñaanalee dina nangu soo loolu la daal. jërëjëf VIP. jërëjëf Star FM nuyu nañ la sant gërëm nañ leen ah. seetaankat yi ñu ngi fii ci Independence Stadium bi ca ah, Bakaw ah, tey nag ah, lambi Gambia ubbeeku na season bi door na niki tey te nag Champion Sound Promotion moom moo xewle. Euh, tëgg combat yu doy waar combat yu am solo mbooloo mi nag mu ngi nii génn si nañ ñëw fekkele si làmbi Gambia waaye nag ci biir làmb ji mu am ñi nga xamante ne rek ràññee nañ leen ci biir mbooloo mi bokk na ci di à la promotion à la ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw waaw jërëjëf Seydou ma laa fay di la ziar bu baax a baax a baax. sa teewaay tey si bés. waaw maa ngi teew su bés bi comme suma mbokki promoteur moo xewle tey ñu ñëw pour support dooleel ak laama ji nga xam ne ñoo ko bokk tamit moo moo waral sama teewaay tey. waaye bu ñu bàyyee xel bu baax a baax dafa mel ni yow it ah, sa bés mu ngi si ginnaaw di ñëw te yaakaar naa ne yaa ngi koy waajal bu baax a baax. waaw loolu tom boo xam ne sax li tax tey ma toog si suuf because mostly si kaw laa leen nekk waaye comme suma event baa ngay ñëw dina baax ma toog si suuf jànga parce que yombut lamba kenn mënut ko so ni mu rek mooy lamba. comme lamba la nag da ngaa bugg di jàng rek all the time moo tax tey ma ñëw toog si bi fii pour mën a gis lu bëri loo xam ne lu baax ma jël su ma gisee loo xam ne gàllankoor la ma mun koo avoid. taari lamba ji tey bés bi nan nga ko jàngatee. waa taar bi mu ngi door di feeñ parce que nit ñaa ngi door di ñëw am nga rek nit ñaa ngi door di ñëw gom naa ne si kanam dina gën a jax parce que lamba moom dugg naa si xoli nit ñi ba pare léegi rek li ñoo ñaan comme ni ñu si duggee bisimilah yàlla dimbale ñu rek même jeex si alhamdulilahi rabbil alamin waaw la ñoo ñaan loo jàngate si combat bi si gara combat bi diggante Ndongolo ak ak ak ak kii di eh, eh, eh, Rambo. waaw dafa doon combat boo xam ne combat bu rëy la daabi la combat bi la combat boo xam ne tey foo ko nata rek passé na fa parce que ñaari ndaama lañ ñaari ndaama yu sawar lañ ñaari ndaama yoo xam ne la ku njëkk sa morom si suuf rek mun nañoo gis leneen mu nekk combat boo xam ne mënu maa wax kii mooy si combat bi honestly speaking combat bu garaaw la te daabi waaw. jërëjëf Ala jërëjëf jërëjëf Seydou. waaw mbokk yi. jëf mbokki seetaankat yi ak Star TV euh, tey nag ci làmb ji euh, ñu ngi nii jàkkaarloog Ndongo Lo Ndongo Lo nag moo war a bëre grand combat bi euh, digganteem ak kii di Rambo fii ci biir Independence Stadium bi ñaar fukki fan ak benn yi ci weeru octobre champion sound promotion nag moo tëgg combat bi Ndongo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw ñu lay fay. sa combat tey sa diggante ak uh, kii di Rambo ñu dégg la nga bëri ay combat yu am solo combat yu doy waar ci làmbi Sénégal am fa ndam yu am waar yu am solo takkusaan bu ne am nga ko biir Sénégal tey ñëw imposé la uh, kii di Rambo nga jël combat bi fas yéene ñëw bu rek moom fii ci biir réewu Gambia. waaw parce que xam nga man ginnaaw ma sant yàlla ji sondu bi sant sama ñaari waajur bëre Gambia moo ma neex dama wàññi sama xaalis yokkal ko pour ñu bëre. bëre Gambia moom ma neex parce que Gambia dafa am ñu may bëggee xam ne tey xam moom maanaam amoon seen fay daal moo tax bëre Gambia dafa neex quoi bëre Sané loolu la dugal ci combat bi waaw mais sa diggante Rambo loo yaakaar tey mooy am ci takkusaani tey waaw parce que kanam ni ko xam inshallah loo am si kanam ni ko xam inshallah bu waaye booy bi ci ndam la bàyyee ko ah waaw yàlla baax na yàlla wax kenn dara yàlla ñëpp la fi nekkal ah maanaam daal yaakaar na nga di nga am ndam ci kaw Rambo tey inshallah bu neex yàlla waaye euh, euh, tey boo seetee làmb ji euh, làmbi Gambia bu boobaa di nga war a mun a am yaakaar ne tey di nga war a mun a wane dara sa combat sa diggante kii di Rambo waaye tamit làmbi Gambia bu njëboo ñu ne mu ngi dox di dem ci kanam nan nga jàngatee làmbi Gambia démb ak làmbi Gambia tey yow loolu. waaw làmb facteur développement la làmbi Gambia mu ngi yokku bu baax a baax a baax mais gars yi nañ yor esprit beneen làmb beneen sport nañ yor loolu. on dirait làmb day jeex. jarul ñaaw jarul xuloo jarul ŋaayoo am na saa ni ñu gën a jàppante gën a fonk làmb incha allah làmb day dem sax boo xam ne fex waa gaam du yaakaar làmb ay sëg billaahi wallaahi mais ñu déggoo nañ dëggu moo ci bàyyi yenn yi dafa am lu la naxari ci combat bi wala non yàlla baax na yàlla baax na bàyyi ma bëre pare seetlu incha allah waxal nga ñun non bàyyi ma bëre pare yàlla baax na waaw ah, ok jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax du lamb ndeysaan ni ko tudd moom du jaaykat yi mu jóge ba Sénégal ngir bés bi tey moo ko tax a jóg kon tey yi ambiance bi dina am solo lool jërëjëf Sané bu Ndungu Thiarène jërëjëf champion sound ñëwal uy fii ñëwal uy si fii champion sound please affaire yi light fii ñu taal ñaari pôle yu opposite please waaw looloo la ñaari pôle yu opposite su ko defee gars yi mën gis bu baax a loolu mooy yoon ayca Tapha Tine mun naa ñëw su paree nag la ñu ambiance ak yéen suñ baay duud yaay gati Mbay mu ngi fi sëñ ak suñ di yaa olu cuun tamit ñu ngi ak yeneen mbir ci biir mbiri ay co jërëjëf Mamadou Alpha Diallo Tapha Tine bu Banjul koñ booba mun naa ñëw tuus Mamadou Alpha waaw waaw lamp ñoo ngi nuyu promoteur yëpp ndeysaan seven combat jamono ji taxawagum na ci season bi Lamp Fall di leen wax ne gàcce ngalaama promoteur yi ci réew mi ndeysaan lu xew daan na Robert waaw euh, asalaamaaleykum mbokk yi bentey rek euh, comme nuñ leen koy waxee rek Euh, ñu ngi gis ay borom ndombal tànka ñi nga xamante rek ay borom tur lañ euh, ci réew mi euh, kii nag moom moo nekk Mr Hadrame Hadrame nag moom moo nekk jëwriñ bi ñu dënk wàllu ndaw yi tàggat yaram fii ci réew mi te nag tey ndaw yi ñoom ñoo xew la waaye koy génnee ci wàllum tàggat yaram ci yaram la bokk te ñi si nekk ay ndaw lañ te moom moo nekk jëwriñ li nga xamante ne moom lañ dënk yooyu yëpp yëg wàllu yi ak tàggat yaram fii ci biir réew mi moo tax ba ministre lay nuyu bu baax sa teewaay ci suñu lépp lépp studio. xëy na si jàmm ak salaam tey mooy suma first time ma atteindre bu since ma résumé office. so pour man kontaan naa gis naa loo xam ne tey géej naa koo gis si bëri depuis ba maa nekk ndaw so loolu daal fees na suma xool bi daal te since suma département la nekk suma ministre la nekk man itam def li ma mun pour support bëri bi because si bi la bokka ñu si jéego yoo xam ne amin du ma mun a wax dara léegi ba sooti daal te yéen itam di ngeen xam ne sax itam vice président bi bii mooy sport am so loolu na maa jox courage li ñoo toppatoo su ko jotee waaw euh, honorable ministre euh, ñu gis ne nag euh, ci history Gambia ñu daan faral di gis ay jëwriñ rawatina jëwriñ bu dëkk wàllu tàggat yaram ak ndaw yi ñu ñëw nemmeeku làmbi Gambia waaye ñu gis ne with this government this is the first time ñu nga dooleel ndaw ñi te ndaw ñi loolu. waaw loolu la ñu digal parce que loolu ko si suñ plan si ne dañoo jox ndaw yi transfert responsabilité bi sax si ndaw yi soo process boobu nag foog ñun ñu teewee si ñu seet na defar yenn plans yoo xam ne dinañ mun a yóbbu koos bi si kanam because wax naa gars yi sax ne amateurs yi war nañoo am time ñëw suma office ñu seet plan si ñoo mun a def pour dëgëral sport soo loolu mu si programme bi te ñu si pare daal pour advance course bi daal. waaye ñu ngi joytu de wax ne soxla nañ euh, arena boo xamante ne ni dañ koy jagleel mbër yi fii ci biir réew mi. of course yooyu yëpp si la bokk moom laa wax ni you know am na ñu nga jotaat contact sax des na suñ ko munee dinañ ñu ko defal. of course si plan bi pour ñu am separate stadium pour yëf yi boole ak sports rek. waxoon réew mi sax euh, laajte bu mujj bi rek mooy wàllu sponsorship bi ndaxte euh, promoteur yi dañ dee faral di jooy wax ne promoteur yu ñu soxla ci làmb ji munaguñ koy am jamono ji te mbooloo mi gis nga ko euh, takku na nit ñi génn si nañ bëgg nañ bëre bi ci biir réew mi sa jàngat ci wàllu sponsorship fii ci biir réew mi ci làmb ji. waaw the same thing boobu itam develop nañ su fekkee ne approuve nañ boobu di nga gis ne problème yi sponsorship will be the thing of the past always xëj na duñ mun a duñ sponsor waaye di nga xam ne am ngeen sponsorship vote boo xam ne ngeen si mun revolve ko def koy revolving fund boo xam ne dina leen support waaw. jërëjëf euh, mister euh, Hadrame muy jëwriñ buñ dënk wàllum ndaw yi ak tàggat yaram ñu ngi lay jaajëfal bu baax a ci waxtu boo jël jagleel ko jërëjëf yéen itam sas naa leen as journaliste pour ngeen disséminer information bi luy mun a attract nit ñi ñu stimuler bi pour lii waaw. dañ tey rek di leen fàttali yéen a ngi ànd ak euh, Star TV euh, comme ni ñu ko baaxoo di defar rek euh, ñu ngi fii ci Independence Stadium bi di Bakau comme ni ngeen ko xamee rek champion promotion moom nag combat bi moo ubbi lamb bi si season bii ñu nekk nii muy ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre atum 2018 fii ci Independence Stadium. grand combat bi nag euh, di diggante longolo ak ki nga xamante ne moom moo nekk Rambo waaye nag euh, ñu nemmeeku ay borom ndombal tànk yi nga xamante rek ñu ngi fii tey ci stadium bi euh, ci VIP bi ñoom tamit ñëw fekkee li nga xamante rek moom moo nekk làmb ji ci boppam. su ko defee rek ñu waxtaan ak kii di Thiam mi nga xamante rek moom moo ngànk wàllub doxal ak saytu làmb ji fii ci biir réew mi Thiam ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi leen di fay waa Star TV am kontaan de torop ci yéen di rafetlu seen teewaay. waaw ah, combat bi tey ah, mbir mi eh, yanj na lool gis nañ fi ay borom ndombal tànk yi nga xamante ne ñëw nañ eh, fekkee ci lambi Gambia nan nga jàngatee mbir mi ak ban yokkute la amal lambi Gambia. waaw tey yokkute bi maa njëkk a wax rek yéen ci ngeen booka bu njëkk ba pour nga gis télé ci lamb dafa jafe te na yaa ngi gis ay télé ay télé ba Star TV juddu yaakaar naa ne Star TV lamba luñ daan def mooy rajo la woon tey yaakaar naa ne dox na ba nekk rajo ba nekk télé safula kon tey ñu toogaat gis Star TV si télé ak yeneen i télévision yu ñëw ay Gam TV ak QTV ak yooyu yëpp kon loolu rek yokkute la ci làmba di am kontaan de trop pare tamit am ministre bu ees mu ñëw in office ees yaagut nga gis ko mu ñëw toog tey ne dama ñëw seetaan si bëre tey kon loolu kontaan de la ak yokkute bu mag a mag a mag la tey nag la làmb ji ubbeeku si sin bi ci boppam te mbooloo mi car macha allah gis nañ ne euh, is encouraging euh, sa jàngat ci loolu niñ dooree làmb ji. waaw loolu santaat yàlla la rek di gërëmati ñi nga xam ne tey ñooy stakeholders yi di ko dooree ci promoteurs yi managers yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy wrestlers athlètes yi compete muy mbër yi ñooñu ñu ngi leen di santaat bu baax di gërëm tamit suñu dex officer Alaaji Abdoulaye Bojang ak nga xam ne mooy Marcel parce que ñii yëpp tey amaana comme liñ dee wax rek caam lañ dee gis waaye yàlla xam na ne am na tamit ñeneen ñu nekk suma gannaaw ñu maa xelal ak di ma bungee moo tax ma ñemeñ kon tey li ñoo ñaan rek yaakaar naa ne mbooloo bi tey ñu gis fii tey dañ expect mu gën a dem mu raw lii parce que yàlla xam na ne si paak su ndaw yi lañ daan defee làmba tey ñu ñëw si Independence Stadium di ko fi defee kon loolu sant yàlla la bu baax di ñaax rek di si wane ne sport bi discipline la njëkk laaj parce que sooy def dara bugg ni nit ñi bugg ko da nga koo teg si yar ak teegin su yar ak amee rek ku ñëw dina si mun a nekka kon man loolu laay dénkuwaat ñi nga xam ne ñooy askani làmba nañ leen génn ñu jàppoo di ñaan tamit nguur gi tey football a moom fii wax dëgg ak nee la ñoom ñu ngi leen di gërëm management of stadium parce que biñu demee ba xëjatuñ ci paak si ñoom dañu xëjal fii kon ñu leen di ñaan ñoom it ñu gestu ñu dimbale ñu nax ñu am li nga xam ne mooy arène lii nag dama ko extend mu dem tuddi his excellency président Adama Barrow comme dégg naa mu ngi wax youth te ñun ñooy youth parce que man ku ma xool sax li nga xam ne amee amee youth mënuloo maa si youth kon ñun ñu ngi bay suñu waar si pour empower youth si nag mënuloo teg ñëpp si office nooy def mooy da ngaa seet fi youth si di yëngatoo nga dooleel leen si empower nga leen tey làmba soo xoolee last season am nañ 169 events 100 astafla 169 wrestlers yaa ngi gis ak amount boo xam ne lépp si lamba la duga soo ko xaymayee dem na si almost 1 million loo xam ne ay promoters ñoo ko state pour di ko dimbalee ndaw yi kon nguur gi war nañoo jël ñoom it initiative ñaawoo ñaan ak ñu ñoo dimbale waaye tamit bëgg nañ ñu gën a yokka parce que lu ñoo jooytu muy aareen wax dëgg ne yàlla suñu feebar la kon ñu ngi leen di ñaan ñu gën ñoo dimbale ci loolu. Euh, laajte bu mujj bi rek mooy wàllub euh, youth empowerment bi nga xamante ne yaa ngi koy wax jamono ji euh, mënuñ cee génnee làmb ndaxte kat ndaw yi ñoom ñoo nekk ci làmb ji waaye tamit làmb réew mi bokk na ci lu ko mun a dooleel mooy sponsor yi. Eh, te tey nag door nañ di ay benn ñaari sponsor ci làmb yi eh, sa jàngat ci wàllu sponsor yi hmm. waaw loolu santaat yàlla la yaakaar naa ne soo xoolee tey gis nga fi tey ay Brewis ak sofi ak Coca Cola ñooñu ñëpp ñu fi kon loolu yokkute la te ñu ngi oo sponsor yi bi ko dama gëm ne fii lu waay bugg a def fu mu nekk nii pour nit ñu gis ko soo jaaree si làmba di nga ko am parce que soo xoolee toonaaw bi génn fii si làmba. yaakaar naa ne du tagga sa boppa waaye yaakaar naa ne fu la ko daan joxe léegi ñu ngi si làmba kon gëm naa ne sponsor bu ñëw dugal sa xaalis si làmba di nga gis sa bopp kon ñu dee oo sponsor si nañ ñu dimbal nañ ñëw dañ si bokk dañ si am waala te government tamit na empower sponsor si ñu mun a dimbale parce que lii tey yuut ñoo see bénéfice soo xoolee tey fii yëpp tey làmba kon dama dee wax ne làmba ku nekkaa si dee gis sa bopp muy journaliste muy jaaykat muy kii a loolu daal ku nekk rek am nga fa soxla ku nekk rek am nga fa soxla te stade bi soxla nañ fi am nañ programme bu seetaan si am na nu mu seetaan si fi jaay si am na mu fi jaay ko ni ñu jënd ko so kon comme naa ne ñi mu ëmb dafa bari suñ ñu dimbalee dooleel ñu yaakaar naa ne dinañ gën a mën a dem ci kanam. waaye est-ce que euh, fédération bi euh, si sa njiital yéen a ngi engagé gouvernement bi pour ñu gis ne seen yenn jaxa-jaxa yi dañ si jël ay waaw wax dëgg ak ne yàlla tamit bu ko dañ Because what they are, wrestling is not the only sport in Gambia. But thank God, we really appreciate what they are doing. Because all the time when we requested for help, I mean, even if we don't get 100%, get a turn up from them. So, and really, we really appreciate it because this is what we are expecting from them. I mean, we should not be saying that they should be giving us all the time, but when it is necessary, let them act. Because what I believe that what we people are doing is very interesting because we it's not only working for ourselves because we are not benefiting from what the only benefit we get Because promoters are investing their money and at those tokens is going back to the wrestlers, the athletes. Those people are benefiting from them and By looking at those days, you never seen a number of uh, people, a, a turnout like this. But thank God now, youths are getting interested in wrestling. And it's our traditional sport which we're supposed any discipline that you go in Gambia, you must hire a, expert to teach you how to do it, except wrestling. Because it belongs to our ancestors, our forefathers. This is what we inherit from them. I cannot engage myself in football. I engage myself in wrestling. And I mean, because of what? It's a sport that I inherited. Nobody teach me how to wrestle. Nobody teach me how to officially. But I inherited from my forefathers. And we really appreciate it. So that's why they should help us, empower us, give us the opportunities. In few months to come, we're having a program that we want to launch. We will go around for a sponsorship, which we want to introduce also because it's not only in Gambia that the wrestling should stay. We're trying to go for international level. And there is a type of wrestling that we want to do, which we call it Grigoromen, Lip Grigoromen, which also our They are from Senegal or Casamance. They engage in that And they are all signed from Senegal to go to France to do that type of sport. So I believe we also, get that facilities, government empower us, we also make sure that we transform eh, the, sport to another level. And this is what we're calling for. I mean, we really appreciate you guys. And I mean, I say this can be the end of the interview, hopefully. thank you very much, Mr. President, for your time. Coupa jërëjëf mbokki seetaankat yi mbokki seetaankat yi eh, ñu ngi fii ci Independence Stadium bi ci combat bu doy waar diggante eh, Ndongolo ak eh, Rambo bu Bakaw ci njiitalub Champion Sound Promotion mooy grand combat bi ñaari mbër yi ñu ngi si digg géew bi ñaari mbër yi ñu ngi digg géew bi ndeysaan ñaari mbër yi kenn ku ne mu ngi déglu ki nga xamante rek moom mooy ref bu nekk ci digg géew bi pour ndeysaan mu def liñ leen baaxoo di xamee rek daal di li nga xamante rek moom moo nekk combat bi ndeysaan dimanche ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre Independence Stadium Bakaw eh, ci diggante Euh, Rambo bu Bakaw ak Nongolo bàyyeekoo foofu ca Sénégal saan ñaari mbër yaa ngi léewtoo ñaari mbër yaa ngi léewtoo ñu ngi ci digg géew bi combat bi ndeysaan kenn du ko saax-saaxee si ñoom ñaar ñii nee naa leen kii di Nongolo moom ndeysaan dafa bàyyeekoo ci defet foofu ca Sénégal ñëw fii nag fas yéene pour am ndam ci digganteem ak Rambo Rambo nag ah ci victoire la bàyyeekoo de boleeru rëy ci digganteem ak Building am ndam ci kawam tey nag ñu ñëw boore kook Ndongo ñaari mbor yang ci digg géew bi ñaari mbër yang ci digg géew bi ñu ngi léewtoo waaye Rambo nag ndeysaan taxawul de moom day warantu rek ku ne ngi déglu sa morom bés bu rëy la bés bu rëy la takkusaan bu rey la ci ñaari mbër yi kenn bëggut a dégg muñal baay ci combat bi moo tax kenn ku ne yaa ngi déglu sa morom kenn ku ne ci ñoom yaa ngi calculer li ngay def ci combat bi waaw ndeysaan ñu ngi delluwaat ci diggi géew bi wax ah kay nangaloon di ko ne ñëwal ci diggi géew bi ñu bëree mu ne ñëwal ñu bëree ndeysaan alaaji bi doy na waar tàmbali nañ waaye dafa mel ni eh, ñaari mbër yi ku ne mu ngi déglu moromam bés bee rëy wala. jërëjëf Seydou waaw comme ni nga ko waxee am na solo introduction bi am na solo waaye dafa mel ni tey xam nga ne tey yemook 20 fes a octobre fii si Independence Stadium bi a bés bi rek doon na bés bu rey déet bi doon na bés bu rëy waaye comme noo ko waxee ñaari mbër yi international combat la kon combat boobu du mun a doon combat bu ndaw ndax soo xoolee kii di Rambo a digganteem ak ki nga xamante ne mooy ndongolo ndongolo jóge ko ba Sénégal du nangu mu ñëw saax-saaxe ko fii ci biir réewam parce que fii home ground nam la kon ci kaw loolu di nga gis ne waa Bakaw yëpp a ngi génn tey pour gis ne seen mbër am nañ dam kon tamit loolu dafa war a tax ba moom tamit combat bi mu jàppee ko fukki loxo ak juróom te bañ koy caaxaane kon moo tax fu mu jaar mu teew teey ci te loolu gis nañ ko ci depuis bu refali bi fuufee combat bi ba tey ñaari mbëri ba tey jàppante ci lewatu rek lañ nekk kon combat bi moo toll noonu Seydou waaw Alaaji Mbay cokaas eh, na ndongolo cokaas na ndongolo cokaas na waaye ah, sa Seydou du doon combat bu yomba ndax combat bi combat bu mag a mag la kii bootu ci gannaaw Serekunda mbooloo ndongolo jógee ko Sénégal bootu ci gannaaw Serekunda mbooloo moom tamit kon it am nañu ko dalal ci biir réew mi kon loolu dina doon loo xamante ni moom it gannaaw am na ko kon tey ci bés bi ah, soo xoolee fan bee Bakaw ak fan bee si Serekunda mbooloo tey ñoom ñoo war a jàkkaarloo ci li nga xam te mooy Independence Stadium bi waaye di lay wax ne rek ah combat bi daal kala meer gañ ko ni koy Sénégal yi doxee ndax kenn xamut um, strength si ki nga xamante mooy ndongolo waaye tamit yàgg ñoo gis ki nga xamante mooy Rambo muy ruube fii nga xamante mooy si stade bi muy am ndam ci kaw li nga xamante ne ni mooy ay naataangoom kon kooku mbër boo xamante ne ni wane na boppam ci li nga xamante mooy lambi Gambia waaye tamit tey doon na beneen test ci kawam pour mu wanewaat boppam ci beneen level ndax Gambia rek la pere am wala dafa bëgg a na Gambia waa kon ah gis nga. ah ñaari mbër yaa ngi demante baaraam jàppante nañ ah dafa mel ni am na lu xew dafa mel ni am na lu xew. refri bi woowaat na leen dafa mel ni am na lu xew ci diggante ñaari mbër yi ndongolo am na li muy wax refri bi. signalé na daf ko mbuka waaye refal du mun a jël loolu ndax refal yi lu mu gisul nga a koo distract kon ah, du nangu mbor dicté refal yi waaw kon ndongo dafa mel ni euh, Ndongo Lo ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne am na woonin waaw parce que daf ko mbuka waaye tamit ñoom ñaar ku ci nekk taxawee na léegi ñaari woonin Seydou kon refali bi fuufaat na ñoom ñaar seen diggante waaye gis nañ depuis bu combat bi commencé ba tey kii di Ndongo moom mooy euh, lonc li nga xamante ne mooy attaque moom moo nekk di attaque kii di euh, Rambo moom mooy défense ñu ngi noonu di ndengeñante ndengeñante nañ jàppante ay loxo di damantey baaram si ah ñu ngi songo songi kaw mbay ñaari mbër ya ay ndongolo. ah mu ngi door mu ngi door door na daw na daw na ndongolo door na ndongolo door na rambo mu daw génn saako yi. dafa mel ni dafa kaaw ndongolo door na rambo mu daw génn saako yi. Ah, ah ah doy na waar. Seydou lii lum lay wan mooy lii na waar. lii lum lay jàngal mooy suñ mbër yi dañ des amun li nga xamante mooy xeex ndax daf ko dóor mu daw génn saako yi kon rambo dafa daw génn saako yi ndax dóor yi moo am doole dóor yi ñoo métti kon lii. war naa doon li nga xamante ne mooy yokka bi nga xamante ne mbori Gambie war nañ ko yokka ci li nga xamante ne mooy ah, dafa mel ni dafa mel ni dóor bi dafa mel ni dóor bi ak xeex bi baaxut ci Rambo dafa mel ni dóor bi ak bi baaxut ci Rambo baaxut baaxut ndax dóor bi daf ko betta fu mu ñëwee expecté wut ko bala mooy xamee lu xew ñam na ko ñamaat ko moo tax mu génn na waat doole pour ñëwaat waaye am na yaakaar ne su waree ñëwaat waaw jox nañ ko woonin jox nañ ko woonin saako yi kon taxawee na ñetti woonin kii di ndong ndongolo am na ñaari woonin kon mbay dafa mel ni avantage bi mu ngi sayti ndongolo ndax expérience bi tey kii di ndongolo loolu la ko nekk di wan waaye fu mu jaar Rambo dëgal boppam taxaw xeex waaye du ko bàyyee li nga xamante ne mooy xeex bi moom i tamit fu mu jaar mu génn a xeex ndax fu mu bugga mooy gars yi bëree songo mu jeex ci ndeysaan euh, euh, ci bëree ci bëree la bugg a combat bi jeex ñaari mbër yaa ngi jàppante euh, ñu ngi jàppante waaye nag ndongoloo ngi dóor Rambo ndengeñ na ko Borogoro ngi door ñu ngi xeex jàppante nañ dem nañ suuf jàppante nañ ñaari mbor yi jàppante nañ ñaari mbor yi jàppante nañ ñaari mbor yi jàppante nañ. jàppante nañ soo xoolee Seydou xeex bi kii di ndongolo càmmoñ la moo xeexee te arrangé wul ki nga xamante mooy euh, Rambo ndaxte mu ngi clip loxo càmm ndeyjoor yi Rambo bi mu war a dóoree di ko dóoree càmmoñ kon yaa ngi gis combat bi advantage boobu leen moo tax fu mu rek dafa ay bugg a daw génn gis nga ni muy dóoree Rambo. Euh, Rambo ci bëre la bu xeex bi jeexee ci bëre la bu ko combat bi jeexee waaye ah. eh, op op op Ndongo Lo daan Rambo daan ko jël bu set wecc daan ko jël bu amul benn werante oh Ndongo Lo Rambo dimanche ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre atum champion sound promotion fii ci Independence Stadium bi ci diggante Rambo ak Ndongolo Ndongolo am na ndam eh, ci kaw eh, bomba ci kaw eh, kii di Rambo daan na ko jël bu amul benn werante jël bi leer na jël bi leer na ndeysaan ay supportersam ñu ngi bëggee ñu wane mbégte ak kontante ci ndam bii nga xamante ne ni moom kii di Ndongolo am na ko ci kaw Rambo ndeysaan Rambo bettu na bettu na ndeysaan Ndongolo am na ndam am na ndam ci kaw Rambo fii ci Independence Stadium bi daan ko jël bu amul benn werante ndeysaan moo nekkoon grand combat bi moo nekkoon grand combat bi ci Independence Stadium bi ndeysaan daf ko nax tey tamit a ah, doole doxul jàmbu doole doxul jàmbu daf ko pël daw ànd moom jëm si suuf mu daan ko jël bu amul benn werante ndeysaan daan na ko daan na ko waaw nongolo daan na Rambo fii ci Independence Stadium bi ndeysaan combat bi combat bu doy waar la kon mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek ak Star TV fii ci Independence Stadium bi di Bakaw diggante Ndongolo ak kii di Rambo champion sound promotion jaar ci combat bi Star TV indi na lépp lu xew ci combat bi fii ci Independence Stadium bi mooy combat bi ngeen doon seetaan diggante Rambo ak Ndongolo mooy grand combat bi ñu tuddee drapeau bi Bori daabo fii ci biir réew mi buñ ko waxee nag. ñëpp xam nañ ko ku ko xamul it dégg nga ko fii ci biir réew mi mu nekk combat bu rëy combat bu doy waar ñaari mbër ñu ñëpp kenn bëggutoon a ñàkk combat bi kenn bëggutoon a saax-saaxi combat bi looloo waral bu paaye bi suflee ñoom ñaar kenn ku ne mu ngi déglu moromam Rambo ngi taxaw di dégloo ndongolo it mu ngi taxaw di dégloo waaye nag expérience feeñ na ci combat bi expérience ci boppam moom moo feeñ ci combat bi ndaxte ndongolo nee naa leen yàgg naa bëre ca Sénégal takkusaan bu ne am na ko fa waaye nag kii Rambo moom itamit am na takkusaan mu ne fii ci biir réew mi waaye nag ndongoloo ko njëkk ci làmb ji loolu feeñ na tey tey ñoom ñaar ñëpp liggéey nañ ci combat waaye dafa mel ni daal doole mu ngi féete ca ndongoloo dimanche ñaar fukki fan ak benn ci